dogal ci jàmm ne ki ko gëm moo tax ñu bind la ki ko gëmul ñu bind ni wax mu ne leen ma juróom-ñaar fukki junni giraay ak benn pour ma gis dara jay Seydina Muhammad bu ñu te doon woon beneen damay seey ba mel ni ci sawar mooy suñu xare waaye foofee su ma jógee ci yonent bi damay waxtaan am na mu foofu yonent mission la yor Macky Sall Senghor ko fi jiitu Abdou Diouf ko jiitu ko jiitu parti la yor waaye tey nation bi turam lañ ci biir kon rasulay grâce xaatimun nabiyyiina wa imaamul mursaliina du juddu grâce jëmm yi ñooy dem ruy di ñu dee waa lu tax gaa ñi jëm la wekk lu tey bi lu tax boo tuddee ñu baax di démb ñëpp ñu ne est-ce ah. te ñu tey ñoo mën ñu démb yi oto yi tey ñoo dax koy démb yi saxaraa yi tey yi ñoo dax koy démb yi roplaanu tey yi ñoo dax koy démb yi gars yi tey yi wutal nañu démb yi lu mujjee ñëw gën a sophistiqué barke Cheikh Al Khadim man bëgguma bokk ak kenn cër man sëñ Moussa jox ne taalibe Sëñ Tuubaa doy barke Cheikh mu tara Mbacké ku ne mën nañu jël cër ba bañ yëkk naa ne Sëñ Tuubaa nangul na li ma dal ci kii ma doy yonent bi nag julli ci moom ci ay wax ak julli ci moom ay jëf bokkul bis bi nag ci salaatu ala nabi la bokk man woote wu may jàng woote wu may cant yooyu bi ànd ak bi laa def bennum néeg laa def man daay pos laa xam ne doom ñëwul jabar ñëwul taalibe bi jébbuluwul man képp ci néeg bi bi ma koy lang fii deret aw nag benn taalibe bi jébbuluwul ci man man nekk ca ba dégg ñu ne ma sëriñ waa dafa nag nga tagar naa umra naa shahid dana ma dana naa musu loolu nag ak julli ba mu ko xamaloo ko may kenn ak Cheikhul Khadim ca la ñu joxe bis bi ca la ñu joxe bisu Badar ca la ñu joxe laylatul mihraj mën nañ ko liggéeyloo Cheikh Mourtada moom ma liggéeyloo ci bis bi nee naa leen foo ëpp yéefar foo ëpp catholique ci Dakar quartier bi nu mu tudd quartier bi nu mu tudd jidda jidda fu mu ne mag mag ma nii quartier mu nekk mag ma bàyyi ci biir ci biir fii rek ndar ba ma fay wàcc ndar ma fay wàcc aw ma fa mboq xaw ma fa kenn waaye te ma joxe lay mu tudd xiraat ca laa def bisu Kazu Rajab tëdd ñu ne ma sampal Kazu Rajab Ndar waa dëkk ba wàcc amoo pas de retour amoo fa mbokk xamoo fa kenn ñu samp la fa bis lii moo tax may defi bis man borom man la benn bis laa deful damay doon commerçant di jaay dama sama xaalis bi joxe addi mais badar Kazu Rajab tam xarit nga di ko liggéey te xëyoo gontoo dégg ñu la ca bor te ñu ne police ku koy see amul dara lu mu fi lépp nii de lépp amul fi permis bi dugguma ci benn këru autorité na jox la carte invitation rek naa ko ngir sëñ bi ma dëkk noonu leen comporté wu ma jox la invitation rek ngir taal adduna bi waaye bis bi bis bi yonent bi la loolu nit booy liggéeyee diine bu jàpp ay samedi ci dimanche bisu diine yaa ngi weeru diine yaa ngi fi bérébu diine yaa ngi fi nañuy woote ci yooyu waaye di liggéeyal diine jàpp béréb boo xam ne diine wootewu fa jàpp bis boo xam ne diine wootewu fa ndax altine daa war a jëriñu ci diine talaata daa war a jëriñu ci diine àllarba daa war a jëriñu ci diine alxamis daa war a jëriñu ci diine ajjuma daa war a jëriñu ci diine waaye samedi dimanche rek ana altine ana talaata moo tax bisu tam xarit benn bis rek ma yëg suñ bàmban bii guddi gi la mu ngi leen di xadam waaw tuuti waaw leen di xadam waaw waaye damay dégg ñu naa yonent bi da maanute la waxee maanute xam na ko de waaye yàlla dana ko sañoo koo xam ne sañoo koo xam ne na nga waaye boo demee nag bakki làkk maqaama xaadimu rasul ñëw ni ma la ko xamee noonu laa ko xamee tey ginnaaw élève épreuve bi bi da ko wane waaye da nga gis élève bu génn mention ñun suñu barke Cheikh Al Khadim billahi lazi laa ilaha illa huwa hayyul qayyum bis boobu muy nekk xale bu ko sëriñ Salim Mbacke dañuy kër gi mu dëkk moom fa mu ne moom Serigne Saliou bis mu nekk leen xadar ndax léegi ñu xadar ci moom ñu dëkk ndax tàggoorul Jibril alayhi salaatu wasalaam kon yonent bi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sa dërëm di ca dem ah. saraxe nga ca def te wecceet lay doon waa gaa yi yonent bi jaral joxe seen bakkan la waa ñu yonent bi jaral suñ joxe seen bakkan barki sëriñ Bamba man sama alal bi ko fekk ma damaa bëgg dégg ba ne lasiina aamanu wa haajaru boobu wa jaahadu fi sabilillahi fi amwaalikum wa anfusikum ahsanu darajaati inda llahi ulaa'ika humul faa'izuun man ñooñu laa bëgg bokk mënu maa joxe bakkan mais bu ko laajoon ma joxe su dee alal dañ ko am dañ ko nar a am rek ngir bare ko ngir bakkan suñu ruuma na dem dara safuñu dara neexuñu lu dul laa ilaha illallah muhammad rasulullah jël na sëriñ ñaan ñi nag ki leen ñànk ba ba dond ki doon mooy abdullahi wa xaadim rasul kooku amul kooku mooy gaas bi xoolal barke Cheikhul Khadim tubaab bi ku dul yàlla mënoo ci mucc tubaab bi laa yàlla mënoo mucc bi sëñ tubaab bi yàlla de waaye mucc na ci di jëkk leen loolu waxuma sëñ tubaab yàlla la de dama ne tubaab yi ku dul yàlla mënoo ci mucc te sëriñ tubaab bi yàlla waaye mucc na ci wàllu lu politique na ci te suñ Bàmba du yàlla mucc na nit matul quatre-vingts lay sol tànkam du jóg wal na leen ba ñu mokk te gën déggul kanam ñuy wax lu rëy dañoo ànd ku rëy mu jëf lu rëy ñu yor man duma jàng ci kenn ci Sëriñ Tuubaa moo ma def nii zéro da ngay commencé dund àjjana te demoo boobu si bëy boo umaroo ilal jinaan bii di yëg di yaa ngi àjjana dafa neex àjjana bu fekkee ne boo dee nga cay dee neex na woo waaye barki sëriñ Bamba sëriñ Bamba dañu yóbbu ci àjjana billaahi da ngay ndax li lay indil la du njàng mu rëy dëm rëy natt lañ bëgg sëñ Bamba man am na ñu ma dàq jaamu yàlla téeméeri yoon mais ricc naa damaa gis rek sëñ Fallou sànni waaye néeg ba nag Cheikh Fallou fii barke xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi man natt naa sëñ Tuubaa ci ñàkk jullee ñàkk woor woor jot ma lànk bañ ko def waaye nag dama doon essayé boobu nag hmm. waaye léegi sëriñ bi moo ko bañ a def xam nga ko waral bañ ma la réew mi Cheikh Fall maqaamam yonent yàlla Moussa la juddoo la juddoo maqaamam yonent yàlla Moussa la juddoo oh. barke Cheikh Xadim ku jëmul Cheikh Fall moom tikki soxla nga jëmul oh. li may wax ni waxuma waxi tarixa de waxuma waxi tarixa dogalu bi yàlla bi ci laa ne tarixa Cheikh Tidiane tarixa bu sell la tarixa Bamba daal nekkul foofu ay minti milliardaires yi ñëw dox ci turu allahu waaye di dox ci liggéeyu sëñ Bamba Sénégal ku fi dee dem àjjana lazi laa ilaha illa huwa xayu qayum jumaay sëñ Bàmba ji ci kaw suuf yàlla gis na la ko jaam kooku yërmande gis nee na rab yi bi muy sar ci bi ñu ngeen yi nga métti la koy waaye leen jaral ko inna ilayna iyaabuhum suma inna alayna isaabuhum suñ tubaab isaabuhum du am kulluhum bi xeebu ñii dañ leen di mbugal ñii ab yool sëñ Bàmba ni ko mbugal du am na ñëpp am yool yàlla ñu ko mën naa ne na Tuubaa jar rek Tuubaa bi abdul muriid saadiq loxo bi kat matal waxu bu naxariyati gis nga jumaa ji baa gën tukki faru su lay tëdd ak fii Seexul Xadim tëdd duñ ko war bokk ci ina yow man fas li kaa dina xaatal ah. yow ma yenn fukk fi suuri fa tax toon afwaajal jumaa ji sëñ Bàmba ji bokk ci dara gën la ma may waxtaan ci li ma bëgg nii dama bëgg ñu kenn Sëriñ Tuubaa nooflaay da cee ne nooflaay bu méttee métti waxuma nooflaay nooflaay nooflaay benn mur ci kër lañ la gaare sëñ Mor bi si feneen murit du bon lay sakkare nee na murit bu sakkare ab dàll mu sol ba dàll bi yàqu am xaj di dox ba nànk dàll la moo tax dàll moo gën weneen wàllu tax a jël ñu loolu wat da alimat nabi hubbu saati bi da alimat nabi hubbu saati yi bëgg jëm ci